mbokk yi mbir mi ku na neexul danga nga bokkul wala ba nga bëgg a bokk te kenn boolewul la Walf Quotidien ñaar fukki fan ak benn campagne gars yi di daw lu ne ñu njëkkante ko lu ne ñu wax ko dafa fekk ni mag bu dee naan ndox mu tàng suukar sa tax assemblée nationale bi dafa neex ba sàppaaral gars yi du rek ngir taxawu askan wi war a doon député rek waaye li leen gën ñor mooy avantage ak njariñ yi am ci doon député oto yi bakkane yi salaire bu dun bi waaye tamit tukki loolu moo tax député yi ñu bari di daw ci ñoom yéen kaay front de terre bi ci xalima nday màgget sëy les députés rawatina député CEDEAO yi ak ya jëm ca UEMOA maanaam parlement yi nekkee ci Afrique soowu jant suñ député ya cay dem ak mission ya ñuy dem yenn saa yi ca session ba ak toogaay ba dafay am lu duun di koppar yi bari yi leen di baaxee député yi nag impôt yi ñuy dégg naan da leen koy dagg yooyu la impôt dee ko dégg rek da leen di cof rek avantage yooyu la nag am ci député yi moo tax gars yi ku ne bëgg a doon député teg ci nag ñu am ay hôtel yu bakkane ci Ndakaaru goo xam ne mën nañ di fa féexloo ak di fa tendafal te duñu fay dara maanaam dañuy toog muy dox diplomatique yi ak lii di laissez-passer yi maanaam fu leen neex jaar fu leen neex jàll te duñ fay dara ñoom député yi looloo tax gars yi di njëkkante muy doon député simple di secrétaire élu wala membre du bureau koo ci mën a doon rek lu sa daraja néew néew rek doon député rek doy na sëkk ngir nga doon nit koo xam ne ku bakkane nga waaye tamit ku barkeele nga loolu nag moo tax gaa yi di daw moo tax it bu ñu wàccee ca aéroport ñoom ak ministre yi ñooy bokk daraja de ca salon d'honneur am nañ fa toogaay loolu nag moo tax gars yi di daw di njëkkante ngir doon député waaye lu di kàddu Alioune Tine bu Afrikajom Center moom Alioune ci yéen kaay bi di Walf Quotidien ne daal la ñuy xaar ci assemblée mooy ay député yoo ne dañ fi nekkal askan wi waaye bu mu doon ay député yoo ne saraxole ak a tàcc ak nalaw rek la ñuy nekkee ci assemblée nan taxawal askan wi ba njëpp yëg ko Alioune Tine ne yi jëm nag mbir mi na am ci ambiance na ko noonu ci fair play maanaam ku daanu rek nangu ni daanal la assemblée nationale boobu la ñu jëm la woon la turbine ne assemblée boobu ce que moom la am wala dañuy am assemblée boo xam ne nag day wute ak yu doon am maanaam ay député yoo xam ne dañ fiy taxawal askan wi askanu Kër Masaar nag am renfort rawatina waa yeewi askan wi yéenekaay bi di la turbine kii di Bougane Gueye Dany moom nag ma ngay jàppale waa yeewi askan wi wa nekkee ca diwaanu Kër Masaar nee na nan woteel yeewi mam may ñaana ko déedéet waa yeewi kay woteel leen mooy wote musiba fii ci réew di Sénégal ci yéenekaay bi di Walf Quotidien m may ñaane waa yeewi dañoo bëgg am ay poste ngir tas mim réew di Sénégal moo tax gaay yi na ngay def lu ne di du duutal ci yële élection boo demee ca diwaanu Thiès Ndar Tivaouane Kaolack ba ci Pikine ak Tëngéej ña ngay xaar yéenekaay bii di enquête def ci enquête ci élection yi ak wat gi nan la nar a deme mu ne daal fi mu ne nii képp ku wax ni nii la war a deme wala kii kii lay woteel wala nee la war a demee da ngaa ñeme yàlla rek élection yi la demee nii gën nañ kaa gis fii ci réew di Sénégal bu dee ci diwaanu Ndakaaru nag Ziguinchor Podor Matam ak Kër Masaar ak Mbàkke dafa mel ne nag foofu mbir mi leer na xam nan kan mooy war giléem ak kan mooy war mbaam maanaam kan mooy gañe moo yi di def pexe bu ne ngir dem ca yële élection yéeni kaay bi di critique ne élection yooyu le dimanche la de waaye fii ak lu ne mën na fee xew ndaxte Abdoulaye Wade ñi ngi koy xaar ci Ndakaar ngir mu dukkee renfort yokk doole waa Yewwi Wallu ca diwaanu Mbàkke ak Touba Antoine Félix Diome di ministre de l'intérieur gi war a organiser élection yi moom ma ngay campagne ngir Benno Bokk Yaakaar te de liste nationale bu Benno di Mimi Touré ah moom kat de yu ko dese mu jëm ca assemblée nationale soreetul waaye tamit jegewul ca diwaanu Yoff Abdoulaye Diouf Sarr ma ngay yokk doole waa Benno Bokk Yaakaar ñaar fukki fan ak benn ci campagne jëm ci élection député yooyu la yéenekaay bi di critique ne cool yi bari na waaye kadd gu mujj gi askan wi ñoom ñooy ku ko yor waaye ci biiru campagne boobi lee jëm dimanche yéenekaay bi di l'info ne li xew bari na de ndaxte Aliou Sow mi ànd ak Pape Diop ci coalition coalition bokk gis-gis liggéey Aliou saw yenn ci kàngam ci partem bàyyi nañ ko coalition bunt bi bunt bi moom caabi bi dafa féete ca ginnaaw maanaam doonu tëj seen bopp ndaxte El Hadj Ibrahima Mbow ngi jiite liste ba moom ak ñenn ca coalition boobi lee mënatunu jaaroo taal bu dee yeewee askan wi Sirsi Jamil moom dem na yoonam bu dee ci coalition wàllu Cheikh Baara Doli Mbàkke ak kii di Mayoro Faye ñoom fekki nan Benno Bokk Yaakaar bu dee naataange askan wi bu Cheikh Alassane Sène moom kon toftaloon ca ginnaawam moo jubootul ak moom mu mel ne li ñuy jëm ci campagne bi rek yaram yi gën a tàng ni ko yéenekaay bi di l'info waxee wax na yéeneem moom Alioune Ndoye ci yéenekaay bi di Source A ak waa Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi di Vox Pop ne waa Benno yi nee nañ daal nin gisee campagne bi jàpp nañ ni Benno Bokk Yaakaar mooy gagné élection vox pop Ousmane Sonko ne la da ngeen dëbb ndox rek waaye élection yi ñàkk ngeen ko ndaxte mbir mi du sax atum waaye atum la nee gi ñuy waajal ngir ren di kii di président tey ji lañ ko war a tër kon faaw ñu gagné élection législative yi waaye yeewi Ousmane Sonko ne élection yi bu ko Macky Sall ñàkkee li wóor leer mooy buñ xëy ca suba sa dina woo opposition bi ngir wax ban yoon lay jaar ba génn réew mi du xaar sax atum ngir mën a dem yoonam ne ko da ngay dëbb ndox rek élection yi leer na ba noppi ci diwaanu ndakaaru bu ma ko ñàkkee bàyyi politique élection yooyu le yéeni kaay bi di l'observateur ne top ak flop yi ndaanaa ni ak a como yi wala garmi ak a yi ñoom ñëpp jàngat nanu seenug liggéey ci campagne bi Benno Bokk Yaakaar Yewwi ak coalition yi ndaw yi nekk ci suuf ñu jàngat leen jox ay kàngam ñu wax seen xalaat ni campagne bi kan moo ca gën a ñu ci diggante ndakaaru mbàkke yéeni bi di Le Quotidien ne élection bi élection député la de waaye xeex bi xeexu local la diggante géejawaay ak Ziguinchor Thiès remontada day am wala waa yeewi dañuy dëggal ni fii ñoom ñooy ki ko moom moom de yéeni kaay bi di la mandat moomale na ko Kër Massar ba tuddee ko gayndee Kër Massar moom Amadou Ly bu Akilee moom Amadou Ly ginnaaw ndaje mi mu doon amal demb ñu laaj ko ni bennoo ngay jàppale wala wàllu wala yeneen coalition yi mun a moom ndey ji seex la day tëddee njaaxanaay en attendant 2024 Kër Massar googu ak yeneen gox yoo xam ne ñi ngi nekkee fii ci diwaanu Ndakaaru yéeni kaay bi di l'Observateur dem na fa waxtaane inondation yi ak jafe ak coono gi mu askan wi ne inondation yi ci banlieue bi ñay dund ca biir ndox ma ñu ngay dund dund gu tar ay ndoxtu ay njanaaw ay jaan ak ñoomin seen yooyu yëpp ñu ngi ci biir ndox mi dëkkaale ak nit ñi ci inondation yi ci banlieue bi bari na ci ay kër yoo xam ne seeni borom dem nañ wan leen ginnaaw njaboot yi bëri tas ci moo tax yéenikaay bi di l'observateur dem def reportage bu rëy ci inondation yi nekkee ci banlieue bi gayndey banlieue bi di Balla Gaye numéro 2 combat bi ñuy waajal yéenikaay bi di sunu lamb ne Balla ak Gris Bordeaux seen combat bi ñuy waajal lu bari dina ci leer sunu lamb ne Balla forme indi contre bombardier yi tax na ñu bari am ci moom jiixi jaaxa naan Balla mi ngi ci forme am déet Gris Bordeaux nag li mu wane tax na ñu bari di laaj naan Gris mbaadu dafa ker du doonoon nooyal ndaxte gëj naa yëngu ci làmb ji ñàkk yëngu boobile est-ce que taxul Gris Bordeaux du mel ne lu kenn xamul waaye Balla Gaye numéro 2 tamit ku ko raw dee ndaxte ñoom ñaar li des seen combat bariwul waaye lañ wane ca forme mooy ay ween ak biir bu rëy moo tax kii di sanjoogu naan combat boobile diggante laax la ak ruy waaye li saa leeralul mooy diggante Balla ak kii di Gris kan moo ciy laax kan moo ciy wi. laax